donc est-ce que yéen yéen a ngi ci aspect boobu noonu c'est-à-dire il faut wax ak jeunes mais est-ce que aussi yéen a ngi ci logique bi nga xam ne dafa leen war a joxaat confiance pour nga xam ne mooy réew mi te yéen kese moo ak ak ci ci réew mi cest à ak ñi nga xam ne ñooy liggéey ñu changer li nga xam ne mooy seen mooy seen mooy seen mooy seen méthode pour que la jeunesse am a mën a rester ci réew mi est-ce que aussi yéen ngi jël prendre encore dimension bi ni mel waaw xam nga euh, man mi wax ak yow je viens d'avoir mes 33 ans jeune là euh, ñoom rek laa jóge ñëw Dakar bi su ma neexoon mën naa jéem a émigré comme ku ñu ñu bëri. comme tout le mm-hmm. mais tey amul kenn ko xam te yaa ngi émigré ngay tukki ma di la ma di la ma di la ma di la ma di la ñee li ma gëm mooy euh, sama réew laa war a tekkee sama réew laa war am li ma war a am il faut ñun jeunes yi d'abord ñu gëm loolu ba pare. il faut jeunes yi jeunes yi gëm ne mën nañ tekk seen réew. pour yow jeunes yi gëmuñu pour yow jeunes yi gëmuñu gëmuñu lool. non waxuma jeunes yi gëmuñu ko li li tax ma li ma li ma bëgg wax foofu mooy li wax foofu mooy. Mhm. jàpp nañ ne peut-être bitim réew moo gën a yomb. jàpp nañ ne peut-être dem bitim réew tekki fa moo gën a yomb. te mhm. pourtant boo demee tey fu mel ni Europe wala feneen. moo gën a yomb wala gënul yomb yow sa avis. man non kenn ku ne ak sa appréciation. Mhm. xam nga lu tax. boo demee tey euh, fu mel ne Espagne wala feneen temps bi ngay def consacré ko di liggéey di sonn dama gëm ne boo ko defee sa réew liggéey te yàqu yu bari dugguloo si li nga bëgg mën ko am alors man.